Euh, morgue bi dafa se si kaddu si abdunar abdunar mbeng moo ko tabax hmm. bi bi papam gaañoo daal la ñëw xool ñaari koor yi topp ñaari koor ñetti koor nekk bi ñu yor benn taabul abdunar bi mu diggee xool muy benn taabul mu ne papa gay li daan man ka ñun benn taabul bi rek lan lan yor biñ ñëwee nag moom mu ne alhamdulilahi rabbi alamin allah pour jël fi tabax fi benn morgue Abdou Ndar bi mu ñëwee moom tabaxal bii def si ñaari taabul depuis bu mu ko tabaxee ba pare nag ñu doon sant yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla may ko fanu gudd ak ak wér bon bi mu ko tabaxee ba nag ñi ko doon tabax nag yàlla def naan ko doon tabaxee dara baaxu si dal bi wàcc ñu xool te ñun fi la ñuy dugg di sang dara wóoru si ñoo woon nag bi ñu ooyee suñu imaam imaam euh, ah imaam euh, nan ma biñ ko oyé mu ñew ñu wan ko ko mu ne li day dara urut ah, imam papa ñay ñu dara urut ci lan ma wax na ma pour ma gis président bima gisé nak ma gis président muy suma jarbaat Peter sa la ko on ak ñëw rob am fi ma oko bu duggal ko ci biir la ko Peter kay poñe ko mu ñew ma ko xolal dal dal ba ngee paré wacc ta fini sang dara urut ci di sang nak mu màbbar suñu kaw ta gaay yi bëggatul duggati ci biir morgue bi sa bo dal ba wati, wacc mu ne inshallah dinañ ko défar ñom de si la ñëw toj ko bi ko tojé dem jëndi ñu leen tégal leen ci ay arwa sax baax ci leen dem jëndi ay arwa tek ci ñom ñoko ci tek ak tamit dañu suñu wër gu yaram bi mu ñëwee tam ñu wax ko ko tamit naka ñun day lu ne la ñuy jànkonteel ci biir mu ne lolu dal amul ben problème mom mo doxal bopam dem si docteur euh bi ci Philippe dimbal ñu toppal ay carte carte yi ñu topato nak seen ñuy faju pour dal en attendant ñu di si man tamit poñe naa ko bu ordre manqué poñe naa ko nag naka jarbaat man day ordre manqué fa coton mu yëkkati 50000 jox ma ma dem jënd ko ay coton ñëw jox ko facture lolu mom def nañ ko def ko mbolo mi mangi len di nuyu ma ngi len di nuyu yeen ñëpp di len ziyara ah, te it di len balu àq samay wax na xam barewul waye dama bëgg mu nekk wax ju am njëriñ ngeen baña xol ci si jëmm ji kay wax waaye nag ngeen déglu maanaam mi may waxe ak it wax ja lan laa si jublu ngir ak nit boo xoolee jëmmaam ja wax ja nee am njariñ ak maroome wala ak miine tax doo déglu sax wax ja lébu ñetti kaña yi ñoo tax du xam dara kaña gi si kan mi di daw di yàq am na kaña yu ko dàq yàq mooy kañ la fi juddu kañ la fi xam ak kañ la fi nangam man samay wax luy defar rek la ñun dañu nekk aw xeet woo xam ni day xeet wu neex a tiitaroo te it ñu war a delluwaat fa ñu jóge woon ngir boo doxee ba xamatoo foo jëm na nga toog toogaay booba ne fa tekk nekk magam lëndëm bu yàggee tekk jooja dana la wan aw yoon ngir suñuy maam sensibilisation si li ma jël si Cheikh Anta am na 17000 ans mooy fukki at ak fukki junni ak juróom-ñaari at juróom-ñaari junni at mooy 17000 ans fukki junni at ak juróom-ñaari junni at ñuy doxal si ngor di doxal si xam-xam mosuñu làmbatu dara

foofa la ñu jóge di dox ba ñëw fii dox ba nekk ci dox fulla ak sutura ak xamante ak bokkoo ak ay teggin boobaak léegi nag may dégg ay wax yuy jubte suñu dëkk bu baax bii muy dëkk boo xam ni maam la maamu laay def fi tëdd sallallahu alayhi wa njaga gay tëdd fi tafsir mbay manaw juuf tëdd fi ñu mel ni ñoomin seex jogol jóob tëdd fi ñu mel ni ñoomin tafsir ma jaan jóob tëdd fi ñu mel ni ali peñ dama jibi lay tëdd fi ak ñeneen ñoo xam ne tudduma leen wànde ñooñu yóbbulu leen dara tëdd ci dëkk bi kon am na nu ñu war a mën a doxale ba royukaay ga nekkoon su suñuy maam dellu siwaat si ñun yoof bu juumee dëkk li bu yëpp sànku bu yoof jubee dëkk li bu yëpp gindalaku man nag damay wax si position bi ma nekkee mooy ab yuur la si wàllu ndey ak wàllu bàyyi samay maam yépp ay yuur lañu xeetu yuur nag bu dëkk bi masaana lëj ba ñëpp a jéem ba mu te si ñoom lay lijjante ko bu ñu tabaxee yàlla def ci barke ci wàll woowu lay waxe du ma waxi par parloo muy suñu dëkk bii di yoof tudde nañ ko ay tur yu mu bokkul tudde nañ ko ay tur yoo xam ne mosu ko tudd dama xamul nag fan la ko nit ñi jële yoof sa doxalinam boo laa wax doxalinam dangay ngay wax yoof tuuti si lan mooy yoof mag ñi fi ne woon muy fukki xeet yi ak ñaar xeet wu su ne xamoon na moroomam xeetam mooy lan ak wan wàll lañ ko féetale lébuy jëluñu woon lépp dénk ko kenn xeet wu ne am na lu ñu la joxoon ñu daan dajaloo di waxtaan di diisoo di sottante ay xalaat ba xew-xew ya mel ni si dëkk bi tey am fi mu tëj suñuy bopp ñun ñëpp ñu bëgg mu génn si te ñu dellu fa ñu nekkoon ay bokk bu ñu waxtaanee rek jubboo amul wenn xeet bu gën wenn parce que koo tagguntoon rek yéen bokk ay maam kaabul benn tànk du ko yenu waxatum laa lu day ni lébu gi man xam naa ne daal boo commencé jandeer tàggi sëgal muy tund wu ñuy wax tàggi sëgal dugali ma ndaw benn waay bërëb tundab xorom ba koor bi ngay ñëw ngor tundab teneex tundab góor gi may ma poon fanweeri tundale ak benn mu dëppoog fa be ay alaayi rabbikumaatu kasibaan yi nekk ci alxuraan mag ñi làmbatoo ñoon dañoo ñoon tundoo ba pare di door a gàddaay ñëw ci dëkk bi kon lu ñu daan def xam-xam lañ ko def te boroom xam-xam yooyu ba tey xeet wu su nekk am na fa ko xam nañu waxtaan na mag ña daan waxtaane bàyyi jiital xel xol yi tey jiital xel yi te xam ne mënuñoo xajale koo ñoo bokk lépp li may wax nag mu jëm ci mbiru fere Yoff yi am ci dëkk bi di coow loo xam ne yàgg na lool booba ba tey mag ñi ñu ngi koy déglu kenn xamul fooy teg sa bopp yonente bi dafa wax ni mbooloo moo gis yërmande yàlla da say tàbbi wante xàjja ko boo gis ab sànja la ab safaan la lu baax du fa juddoo te man day du ma mag sama baay taala jaañ ku ko xam xam ñoomin xam ñoom leen ba Mbaye am laayeen ñu di ko wax Baye Pouteur xam ñoom Baye bu Dëkk xam ñoom leen Baye Baye dem Baye Njongaan xam ñoom leen Baye Ndëbbaan ñoo ñooñu de lu ñu nekk nekk ay gune fekk nañ leen fi man sama baay fu ma sa dem daf ma yóbbaale ma ñëw toog may déglu ngeen am naa am xel wante mag ñi dañ waxoon ne fare yoof ba mu laa ta tudde fare yoof ay gaafal lañ leen daan woowe gaafali yoof booba yoof tuddagu booba yoof fare yi tuddaguñu ay fare jamonoy jaraaf ëli sàmba xam na jaraaf nag ñun ñu defoon liste am yeneen yu ñu defoon liste mais liste jaraaf yi àndul wante lébu lu mu mës a bind mu wér góor gi biree na ndumbe jaañ gi ne du ndàng bu ñu dajee fukki penc ñaari daje juróom-ñaari penc yof daje ngorox wakaam daje ñooña ñoo signé signature ba ne lii wér na mag ña dañ daan daje di waxtaan ñooñu ñoo signé li ma wax sama maam Mbooy Gëy bokk ak soose ña ngi jur ndey moo ko bind maa njeeg yooyu jamonoy mag ña booba fare yëf tuddagul yoof fare yoof daawu ña fare yoof gaa yoof lañ daan wax bu mag ña dajee gaa faal yi daje mooy tey li ñuy wax ay fere jigéen ñi dañuy daje ñetti kuréel yi buñ waxtaanee ba pour tënk seen waxtaan loola sa la yoof di wéy yoof ay jaraafam yàggul am na lu ko jiitu mooy laman yi la commencé sa gëntur mbay nga ba wàcce fal nañ fukki laman ak ñaar bañ laataa dugg si ay jaraaf kon yoof yàgg na lii fi am masu fee am yàlla rek a tax ma la wax yoof nag dañu wax te ñi xam yoof ne ma séeréer xeet wi ñuy wax yuur ñoo koy defare yuur nag du falu dégg naa nag ñu bu yàggul naa yuur nañ nekk saltige amul amul ab yuur du nekk saltige sumbaar dindiir daroobe ñu ñooy nekk ay saltige nit du xalaat di wax histoire histoire moo ñuy jiitu da nga waxe waxee naka mag ña daan waxe boo ko mënoon nga noppi. ñu daan falu jaraaf ñu ngi falu jaraaf muy ñeenti xeet wante loolu lépp li si lépp jubloon mooy defaroo parce que boo jëlee pal yëpp jox ko kenn nit daf koy jox ndombag ngëneel te ma yaakaar ne. kalafal ëppoo ko doole bâtiment boo gis fondation ko yenu booy raax doo raaxu fondation booy peinture doo ko peinture du dëgg loolu yëpp defar la woon mag ñi nag war nañu wax te bàyyi cell la gii wax ji mooy jaraaf daawul fulli jaraaf toog palaasam kenn mosu kaa gis ci yoof ndey ji réew mosula fulli ndey ji réew toog palaasam ndey ji réew ja saltige mosula fulli saltige toog palaasam in mosu kaa gis fare yoof mosu fee jële ak fare yoof toog palaasam te Farayef kat daawul fal boppam dafa am nu mu daan jaare danga daan dem ci mag ñi ñu ne kii day doomi diw wax diw la kii day doomi di wax diw kii diw mooy maamam am na waxtaani yoof yoo xam ne man ngaa dëkk yoof cosaanoo fi wanda doo ko fekke parce que ña daan fekke bokkuloo sa te am na loo xam ne bés boo ko waxee nga sa bopp lébu buñ la daan fal dañ lay tëralal ñett yii la jox caabi dinañ la jox ab buum danañu teg paaka si sa kanam wala jaasi dañ daan tegal caabi tegal la ak guum booba tàmbali perkarer yee fi am tegal la jaasi wala paaka gasal lam kan ab laaj la laaj bii boo ko tekkee war ngaa boo ko tekkewul waroo falu kurig yoof gii tafsir ma jaan jóob mag ñi xam nañu ko moo ko bind dund na dee dundaat dee ba muy fukki yoon ak ñaar mooy door a bind kuri gi ku ñuy fal ci kuri gi ñu ne dem ak càmbeen gële mooy càmbeen ak maam Isa sa ngeen ñu ne la sarax sàngam na nga ko def ak sarax sàngam na nga def nangam ñu yabalaat la si keneen nga dem ba mag ñu mag sarax boobu nga ñëw jox ko ki yor kuru gi mu waajal la def la mu daan def teg ko ci kaw soxob kuru jat la mu daan jat waajal la bu guddi gi demee ba xaaj yow ma ñuy waajal yaay nelaw waa moom ma lay waajal du nelaw parce que la mooy bañ mooy nga bett ka xam fan la kur gi ne kooku war la xam doo ko xam place ab kur gi yaatu na ne kur gi bant bi yër la bu tegu sa ñetti was ñu bootal ko ñetti béjjin béjjin sax am nay reen dafa saxe dëkk yoof màgge fi dib lébu taxul a xam yoof déedéet ku nekkaax li nga yor man de xam naa kur gi ne man maa ko yor mag ñee ko jox maa ngi koy door a wax nii te sama gémmañ jat wa mag ña daan jat dinaa ko jat te jat wi moo sampa fara yoof gii bismillahi salaali mohammed walaali mohammed dogoo konteeg yonti yàlla mohammed wal ali amti ba mukk bismillahi ma tàggu yàlla tàggu yonti yàlla mohammed tàggu jibril alayhi salaamulaay miy buur bi malaaka moo jëkkoon di tëgg tàggu mikaayilu alayhi salaamulaay tàggu asrailu alayhi salaamulaay tàggu asrafilu alayhi salaamulaay tàggu muhammadu rasulullah mi xaatimu nabina wa imaamul mursalin uumaan muumaan umuma leen buur yàlla moo leen um ku yàlla um nga um kulluxuma xon faaf kulluxuma nutug ndox kulluxuma dung kulluhuma jaan ma kondorong kayafi kullu kulluhuma jinne kulluhuma nojoori kulluhuma njëgteef kulluhuma kaawteef kulluhuma kullu ma bet bu ay ma lepp lu jigéentu ko Oman, kuluma leen umaan um oman umuma leen bur yalla mo len um ku yalla um nga umu ko way sala ma janjang ba jaljanga fira allahumma nabi jaman min faddu jomin bismillahi bum raxmaani bum Rahim bum khale is bum tak ju bay mak ju bay xëya ma nga kat mooy maami kayaaf yi ngay jinne may nojóori nga naw ma tef teflu nga dal ma jofeerlu doj meng ma ni meng jant meng ma ni meng yow fi man fi samba ka jank subhana ayabada maakulu toke mbur may ma toke abada abadi inshallah jom sonna yalla suñu borom sohumalle sohumalle sanini sanini isa basete basete johuman solu ko ɗum ɗo mili cohomtolo ɗo ñanto man dam tahara abada abadin sallam jetto sonnoyal soñu borom da siti data siti da siti data siti bismillahi de ñimal takkafuru ma makkafuru may sen pendub ten peleng may sen dub ten may sen pendub ten lii la mag daan fale man day maa yor gi wii wen na la suuf jat yi mag ñi nag yabal nañ fi ay nit ñu jaar fañ war a jaar indi sarax bi yoof de sarax ñu wàññaka ba moomat ma sox ko mu ñetti gënn yi àddina ñetti jamono la démb tey ak ëllëg kii ka soxoon mënatu kaa soxi keneen mënu kaa soxi mooy fare yoof ji may bëgg a wax bon bu fekkee yoof yàlla rek a taxin la wax te bëgg a liggéey man naa gis sab liggéey amul sa sooxe man ne man de am naa xam-xam naa ñëw mu tali la pour dëkk bi dox bu fekkee seetu moo tur seetu ba si alal wanne na nga jóge fii nga nekk man ma toog masuma kaa gis de te mosuma kaa dégg samay bàyyi waxuma pour farfarloo kenn faralu ma kii fi toog faralu ma kii bëgg a toog yàlla tax ma la wax ngir man yoof defar rek moo ma war kilifa day tëdd njaaxaanaay ñoomin sa maam Abdourahmane Benga ñoomin eh, bàyyi Ali Mandaw xamoon nañ li ñu ti kisi yoof see jogal mais mais ña xam nañ la ñu tëgg ci Yoff tafsir ma jaan Jóob ma bind kuru gi de sama maam xam nañ li mu tëgg ci Yoff boo demee waraar wàcce jullukaayab xeer ba fa nekkoon fa lañ ko suul ñëw fi fukki yoon ak ñaar xaw ma cosaanal kenn wante man xam naa sama cosaan Yoff yàgg na boo nag pour defar Yoff damay ñaan te yàlla tax ñi bëgg a ñëw mag Yoff nañu waxtaan ak ñoom jéem leen a dajale ñoom ñi fi nekk ñu liggéey ngi dégg naa ay wax xaw sa dara wante dégg naa ay wax gëstu ko ba xam na dara amu sa man toog naa fii sama kër coow lu bari lool ma jël sama téléphone. kenn santaw ma ka ab laayeen la isaa laay masa laayeen da jaay ciment bi bu muy ñëw yeef moo xin taala ma fekk mu nekk gune gu tuuti amul fukkeer bu génnee réer sama baay Seydi Thiaw yor leen ma ne ka billaahi li may wax bu amul yàlla naa dee si ma ne ka laay dama lay laaj te yàlla tax yàlla rekk laa soxla nga seede ma damay dégg si yoof te yoof laa dëkk kenn ñëwul si man na fare yoof dañuy coow ñu ne fare yoof gi fi nekk dafa am ciment bu ñu doon muy juróom fukki tonne ciment ñu jaay la ka may laaj nan la deme bu loola nekkee dëgg ma mën a basé si loolu ne ñee lu ñu wax kat jar naa gëstu ngir am na yeneen i dëgg yu topp sa ginnaaw wante boo commencé rek say wax yooya lépp nekk ak neen dara amu si leneen loo wax du ma ko gëm ab benn yoon la koy nax man maa téléphoné Issa Laye barke Limaamu Laay ma ne ko doo bëgg nga wax ma te yàlla tax yàlla kese tax mu ne ma kooka la man ko bàyyi bàll isa laa yaa bon maa dégg xamee loo man ma dañu ko yëgise mu ne ma ciment boobu day bañ ko joxe waa fare yoof lañ ko indi si man jaayuñu ma ko de joxuma leen benn xaalis bon laa leen jox Waan dhalanyada kuna garaynaysa man paska man rek naw ma yoof te cosaanoo ma yoof ñu jël valeur bu doy noonu ñu yëkk ka jox ma te samay maroon nekk fi ñu romb quartier te yëpp ma dem ba sa yoonu armée la ñu jox ma ka fa nekk sa laayeen kooku rëy na man ma ne ko ah man maaw mu ne ma jaayuma leen jaayuñu ma joxuma leen xaalis ndeb semence ku denc juróom fukki tonne boo koy liggéey boo laa pare yéenay wow nde man mii mu koy wax semence bee ma denc sama kër yàqu na dañu ma ko jox mu ne ma nag li ma jaaxal day keroog ba ñu ma ko joxee laa leen gëj a sax bët joxuma leen xaalis. waxuma ak ñoom xaalis seexuma ak ñoom xaalis bu fekkee dañ bëgg a liggéey buñ ma laajee te maa ma delloo leen valeur booba bu fekkee yoof daf ko soxla nag xaalis la soxla pour liggéey tamit ma jox leen xaalis waaye daal man yàllaa tax ma lay wax man Issa Laye li ñu ma jox rëy na si man na romb nañ samay maroom ku def jàngkat nag di borom alibe ju waxuma alibe yu tuuti yi borom yi dañoo wax ne usul mooy cosaan yonent bi dafa ne boo bëggee xam bi koy delloo sa cosaanam kullu shay'in yarji'u ila aslihi bépp mbir boo bëgg xam delloo ko fa mu cosaanoo borom usul téere usul yi dañoo wax ne wa kullu ma buniya ala zamin faxwa baatilun lépp lu ñu tabax ci ay xalaat wala xew xel mu ñaaw kooka dara amu fa booy wax da ngay wax lu la wóor gis benn yoon moo gën dégg junni yoon waxuma nag waxi parparloo man ab lébu waxi lébu wax da barñe gi ma cosaanoo commencé sa ndéega ndooy ak sa yur géej ndooy wàcce ba sa jaraaf ma tàndooy ak jaraaf paate man xam naa sama juróom benn fukki maam yu tegloo kon ab lébu la barñi moo jur mbaaw moo jur yoof moo jur dëkkay féete soow jant ndom ba gum ñi di takka yoof rek ba mu leen a barñi takka ka nda jaraaf ɓen paatendoy akin amandow tengu akin jaraaf paate ñooy samay maam yof nag ñoo fi xëccu genn ak ndomba fi dëkk de ngir xeetu yuur wi ma bokk falu fii yoof wande boo génnee tund jalaaw mooy falu nit day xam boppam comme nag dañu dëkk yoof may woote bëgg mag ñi wax moo la nañ waxtaan suñu biir ak bokk bàyyi jéñante bi ak tamante bi koo wax mu wax la te loolu da yàq dëkk te lébu ñun liñ na xamoon mooy rakka toppa mag doom toppa bàyyi ñu bokk liggéey li mooy defar dëkk bi am na loo xam ne boo ko dee seet boo demul toog moo du sotti am na loo xam ne boo ko dee seet boo ñëwul dinaa du sotti am na loo xam ne boo ko dee seet boo demul daagu daan doo ko fa fekk du sotti am na loo xam ne waa Ndongañ rek kaaka man am na loo xam ne waa Mbengeen rek kaaka man am loo xam ne waa Ngappor rek kaaka man booba laayeen amagul dañuy muttalinte bu ñu dajaloo doy booloo lu ñu jëm man ka ma bëgg comme fare yoof yi fi nekk ñu ngi liggéey nda ko dem si ministre des finances yoof amee fa bor kala épongel bar boobu mu dem si lu war a mat cent soixante millions bu yoof doon cotiser dinañu cotiser ay at te duñu ko mën a fay fële taa ñaa nekk jàpp SDE ba jàpp fonctionnaire ak ba nekkoon ak ak banque bi ak essentiel waaye yoo fa ko moom wande këyit yi mu waroon a am amu ko ka dox sa suuf lijjanti ko ba mu kooku ameel nga ko njukkal man gisuma benn fere yof du président ba du ñëw sa suuf koo xam ne ke dañ la utalab salaire di la fay tuumaal nit yomb na waaye na teg sa loxo ak sa bet la ngay tuumaal jafañ na say saay bi gën say saay-saay fekke ka fa mooy defee caay-caayam tax jafañ na saytaane nag dugg gëna suñu biir mo nga ñoy jaxase la kay dindi mooy ñu jaakarlo suñu bet ku ne xol sa moroom ñu waxante deug ba pare delu fa ñu nekkon man no fekk kuy liggéey man ka liggéeyoo ndala mo man manuma ka dama doon dox di dama xa ñëw yàlla nattuma teg ma ndog ma sant kase lool bay fecc nda tax na maa gën a mën a jaamu yàlla tax na maa am toog jot ak toog jàngale waaye dama yaakaar ne fu ma war toog sama njaboot toog fa maa nga fa te man yëf gépp sama njaboot la dafa am lu dugg yof te daaw fi dugg bu fekkonte ne day dañuy oote ne dañuy samp fere yoof ñépp dañuy ñëw bu boobaa lii du am wan toog sa kër ne yëguma te ñu yëgal la nga nekk ndenaat gii ne yëguma te yow ña la yëgal ñu ngi sa ndenaat boo toogee si mbooloo ne yëguma loon yëguma woon dañuy oote loolu du cërëb gor man am naa ñu ma maroomeel ñu nekk ndëngaañ du ma tudd turu kenn ba ñuy oote di ñëw fii yëg nañu ko dañu doon dox ji yeneen soxla wante li ñuy laajee mooy yëgu ma woon waxuñu ma loo bokk ku la koy yëgal ku la koy woo yoo fa oote demal bu ñëpp ñëw njool ñang dëkkul ndinaat te kuri yi ne naa dee dëkk lu ko fi Hmm? dafa dégg ñëw biteur dëkkul ni daan benn ngeen dëkk am na ñu jóge laayeen ñëw la yëgal ñëw ñëw yëgal na la yow yaa ñëwul kon nag tuumaal nit du cërëb góor ñun ñëpp ay mbokk lañ man de xaw ma ko te du ma ko def li ma bëgg mooy li weesuñ fàtte ka te jéem a boole xaw li ànd liggéey li ma teggagul sama bët day mooy fare yof gi bi mu ñëwee ba tey dëkk bi gën naa ñoŋ am na lu nit ñemañoon te tey jii ñemañoo ka diw defu fi dara te man mi kay wax defuma fi dara ah loolu lu mu doon sëriñ bi siyaas diw defu fi dara te man mii defuma dara loolu lu mu doon aw sàqet doo buddi xer bu màgget def fa benn def xer bu màgget da nga fay def xer bu bees bu dëgër boo bokkee si fere yoof gii fi nekk nii loo wax da ngay laay setal sa bopp rek kenn du la gëm boo bokkee si ñi bëgg loo wax kenn du ko gën dañ naan def fi bëgg yële ki fi ne nafare yoof gi jéem nañu toog naa fi ñu leen amul weer ñu jënd ay ndaa dugal ko fi biir géej gi pour fu jën yi dina buddu neen ak yéradi yi bu doon ay pënë matière toxique la boo xam ne day yàqu la ñu ko jënde koo ko xam fa du koy lijjant koo ko xam diw def na léegi diw def na léegi ci ay njorte rek ñun ñëpp benn la ñu xamante nañu te man kat màgget ak géwél laa xam naa dëkk bi man naa waxante de wande du sama cër damay wax te yàlla tax nañ boole nekkaat fa ñu nekkoon ku ñëpp gërëm ku ko bëgg a tuumaal sa ngem ba dina tooy man nag bu dee yàlla moo tax may wax. ak li maamu laay mi yaakaar mooy li boroom xam-xam yépp a wax mooy wala tadinu li aqikumul muslimi ilal xayra bul njortu si sa mbokkam jaam di jullit lu dul njorta lu baax ngir inna laaxa naka yàlla inda zanni abdihi mu ngi si biir njortal jaamam diw moo def dara te yow boo mu koy def fekkewloo ko diw moo def dara te boo mu koy def gisuloo ko wala nga ne am naa kayit kayit yomb naa bind ki koy bind am xelam la sa nekk rek lay bind li gën a wér mooy bi yàlla bi wa kullu ma faaltum fa fi kitaabillahi mudaqaran ila yawm alqiyamati lépp lu def yàlla dëxëñ na ko téere boo xam ne du maay mbóot du ko lekk yawm alqiyam mu ne mu ngi nan ragal yàlla delluwaat ci yàlla yoo fa ngay bëgg a yàqu masumaa gis jaraaf ju fulli jaraaf toog masumaa gis saltige bu filip saltige toog masumaa gis ndey ji réew ju filli ndey ji réew toog ak pal yàlla moo koy tudd ka mu jiital boo bëggee liggéey na nga ñëw nga jàppale ko wala nga ka nañ àndan liggéey coow le bari na suuf dégg naa ko ànd man la ma jot a vérifier waxtaan si ak Issa Laye Issa Laye nga fii naa ngi fii man génnuma dëkk bi numéro bi Issa Laye ma ko joxe wante ku nekk boo demee si moom am na waa wax la nda moom nee ma ku ma laaj ma wax la fuñ ma oo ma uyu leen mën nag boo bëggee wax ay wax te baat ba nga jëkk a génne dara amu si dëgg yàlla loo ma waxate du ma ko gëm xanaa ma teg ci bët lii mooy coow li tëjoon sama bopp si yoof ma amoon te jaaxle lool man de xamoo ba nëb dëkk moo ñoŋul wante nee naa tax tongoor ñoŋ na te mool yi ci géej gi ñoŋ na nda ay mool xeex nañu fee rayante si biir géej gi dox ak xam fa ngay doxe ak ña ngay waxal moo seddal loolu barka dee njaay gis naa ay mool yu jiit la fii nekk ci fitna lool sa naaj bi fii lañ ma romb sama buntab kër man it ma gën a jaaxle ba ma laajee ña ma war a laaj nee nañ ma jàppoon nañ leen wande day mujj ñoo defaroo ba jubboo am na ku sa gëñ ne gëñ naa sa màggug yàlla ne fii dara dootuma fi dellu si sama baay taala jaañ nag da daan wax ne ab atta da yàq defaroo moo ko gën ay lébu bu ñu sàgganee ba dem tribunal ñu atte leen mbokk ak na nañ leen defare fare yof dañ daan wax ne daan nañu diw a ah, kenn si mag ña ka daanoo ne de dugal naa si nangam buñ paree dugal la si néeg yedda la ba ëllëg doo defati lu mel noonu ab lébu day xam lu bari te wax lu tuuti jaraaf kenn jóob jaraaf la woon fi lañ ko fekk wanda mag ñi ma noo wax danaan sell di la déglu di la ba danga naa kii day nelaw te teroo ko nuyoo dëkk bi allahumma salli allah sayyidina muhammadin wa salim waa yoof mbooloo maa ngi leen gërëm defar moo leen tax a jóg te lii yaakaar naa kenn laa sa mag ñi war a wax ab cër nag bu ma ko laaj waa dëkk bee ma ko jox mu leen si sant ma ne mu ko dégg na nga sa wax li nga wax mu ko waxe par parloo waaye man de li ma gisagul axas néew dëgg yàlla ñëwoon ne nan ande liggéey moo gën nga ne jële naa fi kii man maa toog loolu solo xew si lébu gi te li ma gisagul kat déggaguma dara loo xam ne lii jar naa dóor ab xale allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërë ngeen